jël bi c'est bon c'est bon s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf je vous remercie je le maire Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le directeur de campagne monsieur les maires des 19 communes je pense que la présentation d'aujourd'hui nous permet d'affirmer qu'au soir du 23 janvier on aura 20 sur 20. Je dis bien 20 sur 20. Cela veut dire, dans une parfaite cohérence, dans une parfaite synergie, vous mettrez à la disposition du président Macky Sall les 19 communes d'arrondissement et la ville de Dakar, soit 20 sur 20. Monsieur le maire Diouf Sarr, je voudrais te féliciter. Féliciter toute l'équipe. Et j'en fais partie. Pour la présentation pertinente qui a été faite aujourd'hui. Présentation adossée au plan Sénégal émergent, qui est la vision du président Macky Sall. Vous avez commencé en français, en parlant de gouvernance. C'est l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Et vous avez avec pertinence et lucidité, montrer que vous savez planifier, que vous savez programmer, que vous savez budgétiser, que vous savez exécuter, mais surtout vous rendrez des comptes. Cela me semble être important. Vous avez aussi montré toute l'importance que vous attachez au capital humain. Les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les handicapés. C'est l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Vous avez aussi montré que vous voulez que Dakar soit un hub, que vous contribuerez aux côtés de l'État pour faire de Dakar une ville qui participera de manière effective à l'émergence du Sénégal. C'est certainement l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Hier, hier, nous avons vu d'autres présentations, notamment à Fond.e. E. Ce que j'essaie de montrer, c'est la cohérence et la complémentarité qui doit exister entre la ville, entre la ville et les communes, mais surtout que tout cela soit adossé au soutien de l'État, à la vision de l'État. Et c'est cette vision que vous êtes chargé de mettre en œuvre à travers aujourd'hui une version décentralisée du plan Sénégal émergent. Cela veut dire la territorialisation des politiques publiques. Ce plan est cohérent, ce plan est soutenable, il est aussi pertinent. Il est aussi pertinent. Tigatal. Abdoulaye Diouf Sarr dama la bëgg a féliciter la wane ni wane ni wane ni Benno Bokk Yaakaar yëpp ñu ngi sa ginnaaw mais aussi ñu ngi sa kanam pour qu'au soir du 23 janvier ñu mën a am 20 sur 20 gagner 19 yi te amuñu Dakar amul jariñ am Dakar te amuñu 19 communes yi amul njariñ mais am Dakar am 19 communes yi donte du yokk dara président Macky Sall donte du ko wàññi dara ci cër yi ngeen ko dénk dina tax ñu mën a à la base ni mu ko bëggee sa vision de l'émergence bi nga xam ni mi ngi ko tënk ci plan Sénégal émergent li nga wax wane na ni d'accord nga ci plan Sénégal émergent wane nga ni ci nga sukkandiku te programme maire yi ñu gis gis nañ ci démb benn point e mi ngi wekku ci plan Sénégal émergent li nga fi njëkk wax lan la gouvernance mooy axe 3 wane nga ni di nga planifier cest di xam fi nga jëm doo xëy rek di organiser ay marche ay xumbal c'est pas ça wane nga ni di nga programmer wane nga ni di nga def ci budget wane nga ni di nga ko exécuter mais surtout li gën a li président gën a soxla mooy wane nga ni di ko leeral boo paree di nga jàkkaarloog waa Dakar ne leen lii laa leen waxoon lii laa def te nii laa ko defee cela me semble important wax nga aussi li nga bëgg def ci jeunesse wax nga li nga bëgg def ci nit en règle générale loolu mooy axe 2 gis nga président bi mu fi ñëwee ba tey alalu réew mi téeméer boo gis ñaar fukk ak juróomi ji directement ci nit ñi la koy def à travers les bourses à travers la carte d'égalité des chances à travers d'autres mécanismes comme CMU loolu dafa wane ni d'accord nga ak président dafa wane ni jubo nga ak moom dafa wane ni alal ji nga xam ne dinañ la ko dénk incha allah au soir du 23 di nga ci def li nga xam ni moom mooy yitteewu Sénégal cela est important may saluer sa esprit d'équipe équipe bi du Ablaye Diouf saar du benn maire fii ñëpp la équipe bi Amadou Ba ci la bokk mi ngi ci kanam mi ngi ci ginnaaw aujourd'hui on va tous travailler pour que la nga xam ni moom la président soxla la nga xam ni moom la yéene Sénégal donte nag élection yi du élection am donte élection yi du élection il faut que ça soit clair ndax dégg naa ci opposition bi ñu bari di wax oui c'est le premier tour de 2024 mais ñoom 2009 ba tey ñoo yor mairie bi lan la yokk ci président Macky Sall lan la ko wàññi bien au contraire ce qu'on a vu ci li président di doxal ci axe yëpp tey jii ndakaaru Sénégal soppeeku na bu baax ñëpp ne ñee nañ ñu ñëpp bëgg nañoo ñëw ndakaaru ñépp bëgg nañoo ñëw Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr yàlla na ko yàlla jox en deux merci. merci